warugaru taalibe mooy taxawal Baye Niass lu ñu nekk tey Baye Niass la kon luñ fi def rek fayuñu ko sax dañ koy delloo njukkeel rek parce que dëkkam dafa war a gën a rafet ci dëkk yi dafa war a gën a taaru ci dëkk yi moo tax ñu ñëw lañ mën ak luñ mënul lépp dinañ ko def bu soobee yàlla ba dëkk bi taaru koñ yëpp ñu defar lañu war a sëkk ñu sëkk ko waa UCG ngi nii jàpp ci Euh, combat bi euh, lañ mëna lañ mënul yépp ensemble ñu liggéey ko défar ko ba nga xamné su gan ñi ñëwé dañ fi fekk dëkk bu taru ñu loolu rek moy suñu objectif liggéeyal bay Niass moy suñu objectif fu liggéey taxawé ñun dañ ko liggéey ba mu euh, jaar ci yoon ndax ndaxte mënuñu xaar tok di xaar di tok di xaar bëccëg té ñun ñu mën ko liggéey motax ñun dañuy ñëw def ci suñu wàll keneen ak keneen ci wàllam su ko defee dëkk bi jaar ci yoon. ñoo si sa wàll loo nar a def. déedéet man li may def moo li la ma daan def rek mooy defar mbedd yi eh, yii ñu sëkk yi ñu gradé yi ñu bétonné parce que xam nga ne eh, soo xoolee suñu yoon bi tey eh, lu bëri yàqu na ci. pavage yi ñu ci defoon oh, camions yi ci jaar ndox bi daf ko dégrade

tali yi dina neex a jaar dina eh, waa route eh, ñu ngay na le marché ba ak eh, tali bi kon nag yaakaar naa ñun li nga xam intérieur bi nga ne nii ñoom wuñ fi ñun ñu côté boobu jaar pour pour que dëkk bi lépp nooy tali yi nooy lépp jaar yoon ah gan ah Euh, moo mérité ñu defaral ko dëkk bi ba ganam yi suñ ñëwee wax dëgg neex yàlla mel ni Baye Niass fi waaw loolu mooy suñ warugar dañoo war a teew dañoo war a taxawal Baye Niass dañ ko war a liggéeyal dañ ko war a xidmawu ba nga xam ne fa mu nekk ne di ñu xool ah bu soobee yàlla mu kontaan ci ñun. ma ne sama kër nii taxaw nii man fii laa dëkk waa liyaanuñ suma ñu utuma dara fii politique gu ma def ma tous xam nga lu lu may man. gouvernement ban la bok bay ñess jeexna man xaaruma kenn ku ñew ñom balaa ñu daan ñew ma nga daan def suñ ñewé may def bu ñewul ma ma def ko ba mu neex ba mu rafet. mais tey bi ren ñëw ma ne ñooñu kenn xaarul leen. ma gisoo ne gisoo gisoo fi dépp ngi dox. ken xaaru len ciment baangi ni fer fer fer yaangi ni beton béton baa ngi nii camion yaangi taxaw gradeur yaa ngi gradé ñu ngi defar mbedd yi ñu ngi defar tali yi bàyyi am na ay ministre am dara tous kenn xam nga tous tous li ñuy wax tous xam nga ko tous waaw <laughs> mooy loolu mooy ñun ñu ngi fi liggéey bi mën nañ ko ñu ngi koy def waaw xaaruñ ci kenn